mom nak lu am solo la lu mata a bàyyi xel serigne bi da ko indi ci terem bi tuddu miftahul ghuyub tere bobu mu don tonte Omar job miftahul ghuyub kon fi jawabi bi xilli job fi le serigne bi indi netali bu am solo bi mom nak dana ci sayyidina umar ibn al-khattab la bayiko motax moo tax mu ne waruya xan sayidina Omar ibnil Xataab radiyallahu anhu mu ne buñ dee denc ab néew gannaaw buñ ko dugalee ca bàmmeel ba te tàmbalee gu ñoo sotti suuf sa mooy tàmbalee guñ ko suul boo toogee ca fa tolloog boppum néew ba ci wet ga daat koy jàngal faatiha benn yoon ak suratul ixlaas benn yoon ak suratul falaq ak naas benn yoon yàlla dana yëkkatil néew boobu mbugalum bàmmeel dana ko yëkkatil musal ko ci xataayu bàmmeel dana ko tàbbalal ca bàmmeelam ba junni leer waa daxala fii alfa bu dee yow mi nga xam ne yaa ko jàngal nag yaa def loolu yàlla dala ciy bindal tiyaabay junni ñu dee ci xare maanaam ñoo xam ne dañoo ay shahid lañ dañoo dee ci xare junni junni nit ñoo xam ne dañoo dee ci xare daal seen tiyaaba day rëy lool tiyaaba jooju dara ci yàlla defal daal lay tabaxalit ab dëkk ci jannatul firdaws daal lay bindal tiyaaba yi jaamu yàlla ak juróom benn fukki at nan la ko waxee wa ontiyal qaari'u sawaaba alfi shahid wa buniyat lahu madinatun fi jannatil firdaws wa kutiba lahu sawaabu xibaadati sittina sana loolu sëñ bi ci miftaaxul xuyub la ko indee loolu nag kon am nag yomb ak jàppandi lool ci ku teewee ab denc.